من سنني قيا قديم المصطفى فإنني أقيمه بما سفى من سنني قيا قديم المصطفى sant googu noo sant suñu boroom gannaaw fagaru bi nu sëñ bi wax yu rek la mën jur ndax sant sa boroom kenn gisul jaamu yàlla bu gën kawee sant sa boroom moom si boppam bindal na ko boppam ni sant leen ma ma dolli leen seen ma santaatee ma dolli leen kon nag sëñ Tuubaa loolu rek la woote te loolu du taalibe yi rek ko moom كيف كي واخ اشهد ان لا اله الا الله وارغا با نيو سانتالي كا بروما داخ سيغ توبا نانغو نا ني سون بروم ديفال داك خيوول يو كاوي خيوول يو خامني موم موكو بيندال بوكام ياك سون بروم ديفال نما لومو ديفالول كين دامول دي الا يحد الله ما لم يكن ولا يكون ابدا لمنكدي موكو بيندال بوبام كون نك موم سانت بروومم داف كو وار سيتل سيغ في مو جار يب دما ليني واخ setal ni est-ce que gis nga kenn ku ñu jëlé Afrique de l'Ouest yobbu ko Gabon mu delu ci gannaaw seigne Touba gisu len set len ko wër len fep set do ko gis histoire mom rek ka dem Gabon delu ci te mom bi mo dem seigne Touba ñë setal jëmum joju kese andul ak talib andul ak kenn seigne abla neena na su daan ñaan sax amul kuy wax amin yalla may ka mu dem delu ci kon kat sant boromam war na mi ngi noo xamal ni aussi ñun sant sunu borom war nañu waaye nag war googu mu nu war moo tax waru warulu ragal feebar ba ni duñu sant sunu borom kooku nu ngeen koy sëñ Muntaxa woote gii rek la mën woote ndax sant borom sant gii moo fee jële feebar gi te gëm nañ ko su neexee yàlla gëm nañ ko ndax sant sa borom yiw rek a si man topp sant gu wóor moom soo koy sant sa borom sa borom moo lay dolli ba pare defal la yiw kon nag loolu la ñu sëñ bi woo. laaj bu mujj laaj bu mujj ma mooy balaa ñu lay bàyyi euh, maître ma dikke moom mooy. am nga sëñ bi dafa ne ma nekkal fi réew mi gisuma la nga nekk si parti politique waaye dama gis nga nekkal réew mi fu ñu toll moom réew mi lu moo yëngatu rek gis ngeen ma. ma lu xew lu nekk. lu xew lu nekk sëñ bee ma ñor lu xew lu nekk daan ma gis ma yëngatu si ndax man sëñ bi daf ma gën fexe ma réew mi ñor ma. bi moo tax lu ma ñaanal réew mi xam nga man yàgg yàgg naa ñaanal réew mi te maa ngi koy ñaanaat naa ko tey mooy jàmm ak naataange moo tax bañoon naa ba bi may woote lan laa tuddee sama woote jàmm ak xéewal jàmm ak xéewal rek laay ñaanal ba tey Sénégal man sanna ni xalafati bi Mustafa fa inna ni